jërëjëfe sëriñ tuuba jërëjëfe borom tuuba jërëjëfe cheikh ahmadu bamba xaadim rasuul taalifu asnaal xadim alxames di juróom ñeenti fani safar lama ku tedd ki fàttali turam bi far mu di al asnaal xadiimu da koo bind moo tax ci weeri màggal gi ma koy bind la sa di yàlla nañ ko bokk ak ñépp la say xéewal yàlla nañ ko séddale ñépp xumus ak xasr moo di ñaari xumus ñaari juróom la xumus la ak xumus silkul jawaxiri fi axbaari saraa'iri waxtoom dafay ñëw di wuññi saraa'iri ma dalub lislaam ba sëriñ musaa ka waxoon ca ka doon woon lislaam ca démb yooyaa yi fi ñëwaat jamono yooye bokkul moo tax ni ñuy waxe doon wax ju ñépp xamul alif gu ajug ca kaw moo ne asnaa moo nga ca kaw te asna daa féete kaw mboolem ña ca kaw tër nañ ay drapeau ku ci ne danga gañe sa combat waaye sunu kii moo leen gën a gañe asakay victoire am kenn ci ñoom amu ko lam leen rawee ca démb kenn ci ñoom xamu ko lay firnde ja moo ngi ko waxee ca nuru daare ni nee na yàllaa ko wax ni maa ngeeg lu raw kaani xat bay damm du sama bos man bàyyi muumi na sama xat day dëgër ni weñ man baayu na dama mën sama jamono ak yeneen jamono ndax li ma am saa su ne du jeex dafay tonu yàlla mii mën tey def moo dogalul ma am mas duma moroomante donte danaa bind ak a maas muhammadu rasulullahi wutalu ma moroom moo tax mu tuddee ma asnaal alxadim ca moom